demal toog. demal toog toogal ci chaise toogal ci chaise. waaw ah. tànnal bu la neex toog. waaw tey yaay vieille. macha allah. <laughs> ku bëgg a toog tey nga mokkal de moom. waaw waaw. Ousmane Makhtar. bi ko jël ci <laughs>

شاء الله دمك <laughs> يلا لي يلا بارك امين امين يا رب العالمين وصاحب العزيز سيري سالي وجين دوم سيري بابيس جين اك سوخنا امين تجاو دا فا موكال القران الكريم تكبير الله اكبر سيري سالي وكتي كامل بي اسكي الله اكبر باي سالي وكتي كتي بي يمي مو لا ديري باي سالي وكتي خلقوم borom xel kom jaaga yëkkatee kaamil bi wan ko say waajo ñi tegal ci dënd bi moom day mo mokkal tan bu waanel moom mi ngi réer waaw tey de moo jara ree moom fa bëgg jërëjëf dama toog Serigne Saliou waaye oustaz bu mbokkal day bàyyi di Serigne Cheikh Béthio doomu Serigne Papa ak soxna Aminata Diaw moom itam dafa mokkal alquran al karim takbir ala Cheikh Béthio Cheikh Béthio yëkkatil masha Allah wax ko say waajur fee nii nee leen lii ngeen bëggoon mu dugg fii dugg na fi te doon fi jóg. incha allah demal toog demal toog. allahu akbar yàlla na yàlla barke. ñu yor allahu akbar. Oustaz Abdoul Aziz soxna Aïcha Diagne doomu Serigne Papa Diagne ak soxna Manas Fall dafa mokkal alxuraan kay takbir. allahu akbar. allahu akbar. yëkkati ko ca kaw loo. yaa Aïcha. wëlbati ko sa ndijoor. wax ko say waajur alxuraan daa ngi noonu min sa dënn tafal sa dënn bul jooy de tey du bisu jooy de tey bisu bég la demal toog toogal ca chaise ca ginnaaw yàlla yàlla teral la allah waaye mbokk yi Serigne Papa Ndiaye doomi Serigne Modou Ndiaye ak soxna Salimata Dia dafa mokkal alxuraanu karim takbir Serigne Papa Ndiaye yëkkatil kaamil bi ca kaw wax xanaa nit ñi dañoo woor waaw loolu lay niru rek xanaa nit ñi dañoo woor takbir ma sha Allah